asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi suivre ci Leewtoo TV tey nag le 8 mars 2020 8 mars nag journée de la femme wax waaye man Babacar dama naan journée de la femme man dama koo xeeb femme yi jigéen yëpp wala soxna yi bés yëpp ñoo ko moom weer yëpp ñoo ko moom bëccëg yu guddi yi lépp ñoom la ñooy raxas ñooy bale ñooy fóot ñooy yaay ñooy yumpaañ ñooy bàjjen ñooy maam ñooy ëpp jigéen comme ñoom lépp lépp jigéen ñi la moo tax nag tey moom journée bi jox naa ko sama soxna Tene Ngom ak kan madame Diouf Louis Senghor sama xarit sama jigéen di ko jox jigéen yëpp waaye loo ci mën a dégg daal tey jamaïcain moo ñu fi woo Franc Parcelles Mbooloo Bébé Saloum écrit ci mbóor yi tey fii la waaye man suñ xoolal li ma sol bulu soo bi mbay guy gi na maa solal moo fi jaar di nuyu waa Petersen dàll yi Balla moo fi jaar de ma xool ba mu neex ko ndeysaan Omar mu jox ma ay dàll ne ma demee ko reportage kon maa ngi nuyu waa làmb yëpp di ñaanal mbër yëpp jàmm ndax nag mbër yi ñun ak ñoom ñoo bokk ndey ñoo ñuy jàppale ñu leen di jàppale Sénégal na fi jaam yàgg dañuy dem rek jël combat yi Mansour ngeen seetaan ko ci Leewtoo TV du mën a ñàkk Mansour gaynde ngongu gaynde Njaay mbara waaj Sénégal Njaay waa gaynde ngi nii ma xool ndax gaynde gi na dóor roof na ko xal galgal ba xatar bi xatar bi waasintóor waasintóorum jëm ee eh, moom coof wala moom yamooy xet gaay waasintóor dinañ la yëkkati waasintóor maa duñ la tuur ca mbalit ma waasintóor lu mu ko bëgg a def busulu day bañ busulu ba dina ko busulu da koy busulu waasintaanoogul de déedéet arbitre jël la amagul waaye arbitre jël la amagul de xaar bi da ngaa yàkkamti waa suñ toor kaay e waay ndaw Bébé Saloum mon ami mon frère ci loo sant sëñ Abdou Karim Mbacke naar ba di la bëggee sa mbaam nga jàmm santaat naa bu baax tey noo ñëwee ci bi jàmm ju bëri rek ñaanal ko ñëpp ñu bëre ci jàmm ñibbi ci jàmm. ñaan yàlla ndam ci kawam. ni c'est la première fois nga bëre arène nationale de. waaw euh, c'est la première fois mu bëre fii waaw. waaye nag min naa bis waaw. ki ngay bëral xam nga ko. xam naa ne Émile François Gomis rek sama sa Émile François Gomis la tudd rek xam naa loolu waaw. ci côté bëre amoo looy ragal ci moom. déedéet yàlla defu ko de yàlla defut loolu. xeex. yàlla defut loolu. am na ñuy wax ni côté bëre moo lépp compétition gi noonu. waaw mun naa ne nit moom li mu xalaat rek lay wax waaye man daal li may ñaan mooy na am jàmm ma am jàmm jàmm ju bëri ci moom jàmm ju bëri ci man ñu bëri ma daan ko ñu ñibbi ci jàmm. fi mu ne nii yow pare nga nii fi mu nekk nii. sant naa yàlla bu baax. combat man naa gaaw. combat rek lam moom fi koy tënk ak fi muy tekkee koo la kenn du xam waaw mun nga koo tëkk fii mu tekkee koo fee. xam naa li mu li mu moom lay jël si. yàlla baax na ñu ko waxoon ñëpp am na ñu ko ci kanam Jeff ku la wokkati maane xuri ko ba muy naaj moo gën a wóor boo dul tooñ bul nangu ku la tooñ waaye ku la tooñee ko bu ma tooñat dindi ko ba mu set ne ko bul dellu loolooy fulla sëñ Cheikh Tidiane si noonu na ku ragal doo dem waaye ku amul kilifa doo dem kon ragal yam yàlla la bàyyi ci xel maane ah ah ah ah ah ah fa mu dawal loxo ba da koo bëgg a sukkër bi dinañu de sukkër bi ay waay combat bi war naa jeexe foofu de combat bi war naa jeex de dotti nañu ko mu bañ waaye ñaar yee war na ko ndombo dina ko dante la ilaha illallah waay jeex jàmm waay waay jeex jàmm waay eh mërëm mbay fay ma mërëm duudu loolu jàmm am na jàmm waaye jeex jàmm mën na bëre Mansour woon combat di nga génn war na ko ndox daan na ko defee xarañ daan na jëm soo wala combat bi da doy na waar waaye daal waaye daal waaye daal ah ah ah ah ah ah ah, ah, ah. ah mooy fils de Sadio moom maa ngi garaaw lay gis waa ana picc mi ay waay picc mi daa daa liw picc mi daa liw picc mi daa liw da ngay waaj suuf la man si doon si door ngeen jàkkaarloo eh fils de Sadio ñu man ginnaaw ko ni laa fekkoon ca lam bi yàq yàq fay daal ay compétitions yu ñu doon doy waar. bëre booy bool numéro deux tamit final bëre bu métti booy bool daal tey nag ñu ngi ci arrêté et tool rapport alpha Bokar wala boog alpha Bokar bu mu waaw ak sox ba kër gi moo bindee noonu la demee fii de Sadio ak Koundé fii de Sadio ak Koundé. ministre Sadio Tay Singal ca Eumeu Sène Tony Kayar ca Diam Terry waaw waaw xanaa loolu lañ jëf leen Diam Terry loolu la ñu reprendre ko Tony ngay doxalal acteur bi moo ñu woon ginnaaw kan sax acteur acteur baa ngi ci yëful kan ma sa kan sax na sax wala bu jëm mu ngay lewaatoo de mu ngay lewaatoo de door na ko hey acteur acteur Kaani Baasa Kaani laajte na leen waaye xëy na ko soxam suuf mu koy doxal moom su bëgg a bëree moom bëri bu gaaw Weuz Diambar jàppoon xale bi daa mën a bëre de walaay jàppatu la wóor wasan koy dóor wala lan lu bëgg a def Weuz Diambar kooñaa eh Arama Samba bu xarañ loo ca Colobane Weuz Diambar mbërëm maas sa mbër maa ngi maas bu xarañ loo borom fukki jaay waaw ndeysaan koo ñaam bërëm la waaye da koy xoolal bañ na de bañ na de gis nga li ma lay wax daa mën a bëri